man moom maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di nuyu ñi nga xam ne moom ñoom laa bokk nekk ci arrêt bi fii ñun moom dëgg la ñàkkul liggéey nag moo ñu dugal si affaire yu cag-cag chauffeur si tey ñoom seen dawal lenn la am na ñoo xam ne dañuy dawal te mënuñ oto un wala ndànk am na ñoo xam ne dawal dawal mënuñ odo da gis koo xam ne day am tuuti somme cent mille franc wala quatre-vingt mille dem li jëndi sa permis ñëw téye oto di fo léegi nag loolu mooy waral accident yu bëri lenn nag moom dama ko jox état bi man état bi moom a gën a soxal dama bëgg la ma lay wax ne nga jàllale ko tey nit ñi duñ ay xar wala ay xaj ba nga xam ne tey da ngay taxaw ñëw a ñëw rek nga jël ay ay mesure di ko teg si doomu aadama yi nit ay doomu ay doomu aadama leen ni moom daf ñu war a jàppee ni ay doomam ñu mu jël ba pare yóbbu leen ay bitim réew ñuy amaan amaana ñun nag suñ papa yoruñ wala ñun yoruñ ba nga xam ne man tey ñu nga toog fi Sénégal gëm suñu bopp di liggéey yor suñu machine ngir yàlla war a sole nañ ñu bàyyi am na mesures yoo xam ne kenn du ko gër a a tegal ko doomu aadama parce que loolu dafa ñaaw dafa métti est-ce que dégg tey mesures yi nga xam ne da tegal ko borom oto ñoom amuñ leen lu dul liggéey tey naka ngay demee jënd biis ñaata million ñëw taxaw na ko ay client nga yëpp tey man su ma nara noon dem Touba yor ay frigo yor ay bagages yu war dem Touba nan laay def ba mu dem est-ce que mën naa jël oto bagage di ko fay ay deux cent cinquante mille trois cent mille pour Touba te du neen xool li nga xam ne maam jaaro na ñu koy def neen bàyyi alal réew mi ñu top di ko lekk di ko saax saaxe ni ñi ay doomu aadama leen waaw ak lan ban question. waaw xam nga nag tali la tax soob bi gën a bëri grand parce que ñun sénégalais dafa neex a ndax xam nga lu tax. da ngay gis ñu fay leen ay milliards yu nga xam ne maanaam dafa war a jëm ci tali bi au lieu que ñu def ko ci dañ ko def dañuy ñëw rek lal fi nii fi ñuy wax nii nii chaque jour ñu gis fi soog pour lan fu ñuy def tali yi baaxoon pont bii nii bët bu set nit dee fu koy def ni ñu defaree tali yi moo normalut fu war def doodaan daan duñ ko fa def léegi dañuy def ba nga xam ne maanaam fu oto war normal ñu def fa doo daan pour lan looy a duñ dee loo daal laay laay laajte foo war a def doo daan doo ko fa def foo ko wartu def ngay def boo ñëwee boo marché la da ngay daanu Yeah, man. waaw mais xam nga comme li ma la wax tey dootaan buñ koy def dañ lay xam nga tey am na signe yoo xam ne dañ koy def ñu nga xam ne lii dootaan la mais bu ne boo demoon si àllu ñaay bi tali yi yàqu na yoo danga nga signe yàqu na yow doo xamante looy def yow da ngay daw rek pour yow dafay normal léegi nag bi dëkk bi moom foo jaar tali yi baaxootuñ Sénégal sonn na barki Serigne Sall man xamatuma fu ñu jëm ñun man man Mouhamed xamatuma woon fu ñu jëm boo naree gën a réew mi ñun di la problème boo nar a des réew mi ñun di la problème ñun moto yi ñuy jàpp pour lan lañ koy jàppee bu ñu xëy ñu naan lii la réew mi pour tali yeeg yi su wel tali yegut foo jaar ñu dàq la da xool nag li fi nekk cest à waaw. waa xam nga ñun te buñ di yalee sin lii di ko def dañuy ñaan yàlla yàlla musal ñu saa yuñ xëyee te da ngay gis ku ku julli di ñaan yàlla yàlla musal la si tali parce que lan da ngay yem nit daje fi benn oto léegi mu fiir la yow nag bul xam mën nga dee mën nga dund borom oto yi ngir yàlla ngeen jàppale ñu ñun ay seen rakk leen wala seen doom leen ngeen may ñu dimbale ñu nag dañuy xooslu pour defar seen avenir waaw loolu de la am lu may wax man grand di la di la di la ñaanal jàmm yow sa liggéey bi yàlla may la si ndam yàlla nga dem ba si loo bopp yow ci barke Serigne Sall yàlla bu si état teg loxo ok merci. waaw bon loolu mën naa ne sax nekkul si biir Dakar fii si biti la quoi loolu métti na trop ñu ngi koy métti lu tamit di leen ñaanal yàlla xaar leen àjjana moor yooyu noonu tamit xam nga di moytu lu bari sax. ñun ay moto lañ yor dañuy cag-cag dañuy livré dañuy yóbbu ay client quoi xam mais ñun tamit ñu ngi dund lu métti si télé bi yaa comprendre des fois dañuy yeb suñuy client sax yaa mu gën a xam dugg ak moom si VDN bi mais borom ca kii taximaane lay wax dañuy siisu parce que ñun dañuy jël seen i client nee nañ si lu ñu wax mais fii ku nekk sa wërsëg ngay lekk dañuy jël suñuy client di dem après gars yi dañ lay tànc si VDN bi mais loolu du yoon loolu il faut bàyyi ñu wax il faut ñu takk suñu morceau yu xonk xam nga def ko ñaxtu quoi dañuy manifestation si loolu noonu loolu rafetul dañuy yëpp say client des fois da ngay gis espace boo xamante ni xañ nga si mais da nga ne yaa ngay dugg ñu tànc la nga laal seen rétroviseurs yi ñuy siisu quoi loolu teguñu ko fenn wala amoon lu may wax man. mais waaw nice dañuy xam responsabilité bu baax a baax parce que man su ma yeb man man man kese su ma yoree moto li may foowee su ma yebee client moom man mosuma yeb client si télé bi def erreur quoi parce que damay xam ne man bakkan laa yeb mu koy teg si yoon du dem mais da dawal sa moto borom oto yi di siisu parce que dañ naan fii xajoo fi yéen fur seen bët xaj rek ngeen bëgg fa dugg loolu nañ yaatal xooli quoi Sénégal nañ yaatal xooli borom oto yi. wax nga ne dugg ma fekkee yow bon du loolu sax loolu benn affaire la quoi xam nga des fois da ngay yor moto di topp neexaay yi mais boo yebee client si boppam da xam ne yow nit nga yeb c'est que da ngay sóoraale ëllëg boo boo ko foowee si moto bi rek ëllëg mën mën na ñëw quoi tànn keneen parce que ñun dañoo bëgg ku nekk di yeb am say client yoo xam ne chaque jour da leen di yóbbu xam nga boo yebee client il faut nga teg ko si yoon moom mu mun a kontaan moo tax bu ñu yebee client ñu koy respecté ko wax sànq tamit borom mhm. di jàngonte ay kii yu métti dara. dañuy jàngonte yu métti des fois des fois boo laalee oto jàmbur ñun moom suñuy papier matul moom suñuy papier benn matul si parce que da ngay laal taximan sa tànk mun na gaañu sax du ñëw ne la mbaa gaañu ko day ñëw rek ne la ñu dem Costa parce que day xam ne yow say kii matul quoi xam nga day ñëw rek ne la ñu dem nañu woo Costa dèjà de moo tax du ñu laalee oto yi rek dañuy fexe daw ñun balaa xat. xam na ne ñun suñuy papier matul mais dañoo war a comprendre xam ne dëkk bi amul liggéey moo tax ñun ñoom ñu dugg si cag-cag bi di job nañ yaatal xooli quoi ñun ñëpp ñu mën a liggéey quoi moo tax bon loolu la demee waaw tali bi tali am na yu baax am na yu baaxul tali am na yu baax am na yu baaxul bon mais ñun tali yu baax yi si la ñuy daw ñun Nord Foire la ñuy taxaw ñun Dakar la ñuy am client parcelle des fois ñu am fa parcelle moom loolu moom dañ cee war a wax benn tëli baaxul si parcelle xaw ma lu tax nag yeneen ko ñu bàyyi ñu defar tëli mu naaj parcelle mooy loolu. waaw loolu sama kaddu kii wul quoi parce que boo xoolee borom oto yi ñoom tamit dañoo war a def ndànk ci tali bi waa xam ne ne ñoom ay doomi adama lañ lañ yëg waaw parce que nit ki boo ko yëbee mel ni avion mel ni avion nga këy nga yor loolu tamit du yoon da nga war a respecter euh, sa voie respecter respecter li ngay dawalee nga xam ne ne ay doomi ay doomi adama nga yëpp waaw naa yàkkamte yàkkamte egg bi nga jëm pour nu retournaat ñëwaat loolu tamit du yoon waaw lu ñuy wax tamit ci ci bagage yi loolu tamit mënul ñàkk naa ñoom tamit nañu nañu yemale rek nañu yemale naa ni ko ni sir sase bu mel ni kenn xamul loolu tamit day na waar waaw day na waar lu ñëw rek ñu tëkk ca loxo ya rek nga xam ne ne ah yàlla moom lu muy def moom kenn mënu ko xëccoo moom quoi waaw merci beaucoup ci lo ci côté boobu quoi góodaan yi fii yi tali moom mooy loolu quoi xam nga état tamit mënul liggéey tamit bu liggéey lépp loolu mënul ne ku la wax ne tamit état mun na liggéey lépp tamit day da lay naax day liggéey bii rek bàyyi bi bu keneen ñëwee liggéey bi bàyyi lii parce que boo xoolee tali bi am na foo xam ne boo fa demee woowu dafay xotteeku li ay pax pax pax pax lay de ba soo mën a dawal ak seen doodaan yu bari yi nga xam ne ne grand mënoo dawal waaw doo daan xam ne mën na yàq sax amortisseur loolu loolu du yoon doo day yem waaw doo day yem day yem day yem naa jël doo daan def ko nga xam ne ne moo la ñu ngi ñu baaxul waaw nañoo xoolaat loolu tamit tamit ñu jàppale ci loolu quoi. mais doo daan yi boo gisee def ko des fois boo duggee si nii si mbet nii ba xam ne ne xale yi dañuy faral di fooyee foofu. xam naa loolu moo tax waa mairie daf doo dañoo ne ne boo ko gëjee mooy loolu quoi waaw rafetul rafetul dara waaw même sax oto mun na yëpp malade ah jaar foofu ah yokk yokk ah, kii malade ku quoi feebaru malade bi parce que doodam bi day kawe waaw day kawe trop vraiment bu ñu sañoon daal ñu yomal doon nañu quoi waaw ah mesure quoi ngaa jël uh-huh. pour arrêter wala xam di wàññi li nga xam ne uh-huh. bi ñuy wax ci kii bi mooy ci uh, transport ak kii bi yëpp ñoom nañu yemale abri bi rek nañ ko yemalee te sauveur xool lu ñu dawalee parce que boo xoolee li ngay dawalee yaakaar naa ci am waaw boo gisee loo xam ne tamit lii nga xam ne lii kat su ma jàkkaarloo mun naa am problème mun nga tegis tànka raam tuuti ba egg fi nga jëm parce que yàkkamti tamit gara baaxul naa soo bëri dañoo yàkkamte seen mbir dañoo yàkkamte seen mbir te ñun ay doomi adama lañ kat waaw ñun nekkuñu ay mbaam ñun doomi adama lañ ñoom nañu xoolaat leen seen dawal bu baax a baax a baax dañuy wax dañuy ci cak-cak yi na cak-cak yi na am na tamit ci cak-cak dañoo uppal débat da nga yor sa moto laa la borom moto ñëw gaan def loo xam ne nit gaan ko su dul noonu dañoo uppal de bari man man man cak-cak laa naa borom borom cak-cak yi dañu uppal te dèjà ñoom tamit ñoom tamit dañu yor cak dañu yor kaski bii dama am njëriñ waaw bii nii lu am njëriñ la naa borom moto yoo xamuñu ko da ngay da ngay doofa da ngay dèjà nag ci tali bi gaan nit ne mel ni mel ni piti loolu tamit du yoon ñoom tamit nañu xoolaat leen li ngeen def parce que kenn siisu leen parce que lii Sénégal la quoi ñun ñoo bokk ndey ñu ñoo bokk bàyyi waaw ku ne ak sa war rek soo yeewee sa lal li nga war a am la loolu nga war a am mu jeex du taximaan du du borom moto du leneen du leneen du leneen du leneen waaw naa tamit lu ñu wax fii wax fee nañu respecté casque yi ñaari casque yi waaw comme état loolu la ñuy wax ni ñu respecté casque yi demal balee nga jëndee casque yi huit francs moo gën nga dem bale jënd moto moo xam ne ne quatre cent soixante mille wala quatre cent cinquante mille nga jëndi ko après bàyyi casque yi du yoon quoi merci beaucoup gannaaw kontaan naa ci yow trop maa leen di ziare bu baax ah, di ñëw si li nga ma laaj di la si tontu di leen ñaanal jàmm tamit bu baax a baax booy accident bi mu ngi ñaan yàlla ñu si jot a ñàkk seen bakkan yal na leen yàlla yërëm xaare leen ajana si barke Seydina Mohamed métti na métti na trop même tey sax dégg naa tamit soog am na lu ma ay 20 maa ngi ñaan yàlla yàlla yërëm leen xaare leen ajana bu baax a baax a baax. waaw euh, ba état mesure yi mbiroon sax bokk na lu si jàpp lu si ëpp lu si ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp soxor si la bokk si ñu may njëkkee mooy taximaan yi man cag-cag laa mais taximaan lu ñuy def si kaw tali teguñ ko fenn benn mooy yow da ngay jaar si diggante ba leer na la yow xañ fi moom moom loolu leer na ko dangay ngay gis mu ñëw tànc la est-ce comprendre loolu tamit si lu bokk sog yi di bari loolu si lay bokk te oto yi war nañ def ndànk war nañ def ndànk bu baax a baax a baax xam ne si lu ñu yab seen oto ay nit lañ borom bakkan leen ni ñoom ñu def ndànk waaw loolu laa amoon si lu may wax te taximaan yi tamit wax dëgg fa yàlla ñun foo taxu ñu jóg ndax doo yëgadi sa 450 000 wala 350 000 dem jëndee ko sa moto ñëw taxaw di liggéey ñu lay soxoree si kaw tali bi du yoon teguñ ko fenn war nañ yaatal xol yi waaw kenn ku nekk sa wërsëg ngay lekk des fois nekkul infraction bi ci yéen lay ah? ñàkk c'est que ñu mënul ñoo yàq ñu mun ñi ci kaw tali bi ñu munul ñu ñoo yàq ñu mun ñu ci kaw soo déggee ñu ne borom moto yi borom moto yi ñu mënul ñoo tax ñuy wax mais doomu aadama soo xamee li la tax a jug rek xam li nga bàyyi ginnaaw après sa lépp day baax quoi li nga xam ni ngay dawalee ci kaw tali bi. non fu may njëkk a wax mooy fu ma dëkk ndax parcelle tali yu si ëpp baaxul quoi ñun clients yi ñu ëpp ñuy am mooy dañuy dem dagaar xam nga aller retour genre yooyu ay Sandaga retourné waat mais tali yooyu nice mais soo duggee biir parcelle nii tali yu bëri yëpp fooseeg yëpp soo gisee affaire yëpp yëpp ñoo yàqu tali yëpp kàmb la gaañeen biir parcelle mooy loolu yëpp gars yi war nañ ko defar del déglu del xool